ne dama lay dégg nga naan Karim et moi euh, c'est de la solidarité dans la souffrance wala dafa am un un rapprochement qui ne dit pas son nom entre yow ak Karim Wade. waaw bii de question la <laughs> waaw bii moom question la bii mën naa ci tontu euh, Karim dafa dund lu metti dafa dund lu metti gis nga kaso be ku fa dem xam ni dëgg doo nga fa ne kaso be et quand tu as l'impression que c'est pas juste day gën a metti c'est pourquoi moi su ngeen seetloo depuis 2021 je dis faut pas qu'il y ait une troisième victime xam nga loolu ngeen may dégg may wax faut pas qu'il y ait une parce que quand tu es injustement euh, embastillé day metti trop c'est pas une question de solidarité de de, de prisonniers hein. mais je considère que il est porteur ou il est l'héritier en tout cas ses camarades le présentent le prennent le considèrent comme tel moom mooy ndonok Ablaye Wade moom mooy respon moom mooy candidat wu PDS ak ce que représente le PDS ñuy waxtaan c'est normal ñuy déggante c'est normal maintenant il y pas de sorewuñu sorewuñu mais ñu ngi mais réeroowuñu daañuy waxtaan yenn saa yi parce que euh, réew mi ñoo ko bokk.